maa ngi koy nuyu bu baax a baax sama droite maa ngi fam ki nga xamante ni mooy Mathieu ki nga xamante ni doomu la nekk ci Kepa ki nga xamante ni mooy Lac de Guiers ma bàyyi Jacob mu nuyoo di ko wax félicitation ba noppi. ay nuyu naa la. waaw fay na la di nuyu àdduna di nuyu monde entier ginnaaw ba sant yàlla juddu si yeneen bi sant suñu ñaari waajur waaw di ñaanal seen papa fu mu nekk yàlla na suuf ci kawam sama maam Gilles Balde Junior Moussa Lo Moussa ak sama benn xarit bu dëdd àdduna fan yi ngi leen di ñaanal suuf seen kaw ak mboolem jullit jëfa tëdd waaw di sant sama yaay bu baax a baax a baax delluwaat santaat di nuyu waa Kayar Ngor Wakaam Yoof Bargny Tubaab Jalaaw yéen yéen kaw yéen suuf Caaroy waaw di fop fu mu nekk rek maa ngi leen di nuyu di wax ñaani yegg si na di nuyu sama côté papa ji waa Casamance waa Kolda Añak Uñu maa ngi nuyu ñëpp daal ak waa séeréer yi tamit dalee jonwaar Fimela Diofior sëñ Moustapha maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax ak waa Fuuta yi tamit maa leen di nuyu waaw di nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu sama xarit yi tamit waaw. ok di nuyu ñëpp di sant ñëpp euh, xaritu démb nag boo ko amee ci mbër da nga koy jàpp ndax gannaaw nee nañu mbër yi dañuy waraate sax la ñuy wax la gars yi di wax waaye moom dafa mel ni bokkul ci mbër yi wër ma nuyu ma ñëw ci kii parce que nag bëri nga ko combat bu neex combat bu métti daan nga tamit añ ak manière loolu dinañ ci ñëw euh, Mathieu nuyu naa la. maa lay fay. di nuyu ñi fi toog ñëpp di nuyu Jacob di ko féliciter si victoire bii mu jógee. di nuyu sam booy bi ma àndal imam di jaale kenn ki nga xam ne dafa sori ci man muy Daouda Diassi ñu naan ko Dave mu génn àdduna barki démb maa ngi koy jaale ay mbokkam di ko jaalewaat parce que kooku dafa sori ci man dafa sori ci man trop trop parce que xaw ma ku dul moom. Mm-hmm. waaw te barki démb la génn àdduna mu doon lu tiis ci man moo koy ñaanal fu mu nekk yàlla na suuf si koom. yàlla na ko Seydina Mouhamed teeru. parce que naqar bu bu tiis si man la. naxar bu tiis ci yow la fa mu nekk yàlla na suuf oyof ci kawam yàlla jégal ko ay bàkkaar fi doon ay ñaan doo nga ci des ñu ñaanal ko rek mu nekk li nga xamante ni mooy li gën ci moom. mais Jacob euh, defe naa ne bi mooy si ñaata septième combat la huit. huitième huitième combat sept victoire benn défaite. mais ñu gis ñu gis ñu gis palmarès sa combat day faral di métti du ñëwagum sax ci boobu damay ñëw sa digganteeg euh, yaag mbañik kenn bëgg combat bu metti combat bu yàgg chaque jour sa combat day metti te danga nga ciy xeex xeex bu metti combat ba ki dem bi tamit noonu lan moo waral combat yi di métti. waaw ñu may jël ñoo yombul rek. ñi ngay jël ñoo yombul. mais dama gis mbëy dañuy tànn lu xaw a nooy tuuti sax pour mën a am ndam. <laughs> waaw su nooyee léegi rek ci kanam day métti. waaye su ñu léegi rek ci kanam day doon. Euh, bi ma déggee ne booy Jobaas nga jël ñu ci bàyyi dañ ne Jacob xamul booy bi ñu ci bàyyi ne Jacob dafa juum ñu ne Jacob day daanu déggoon nga wax yooyu. xam ah, maa ko doon dégg kay dañuy liir commentaire yi ni gars yi di lire commentaire yi noonu lañ koy lire mais di sam sama xarit yi rek ñoom lépp ñoom la dañ doon cotiser presque chaque jour 1000 francs kuy wàcc day indi 1000 francs di ko cotiser plus de cinquante personnes xam nga loolu. chaque jour cinquante nit buy ñëw day àndaale mille francs. chaque jour muy ñëw cinquante mille. billaahi xam nga ñooñu aw ma seen fay. moo tax lu may def rek day dama koy assuré du ma ko fooyee. Mhm. amul koo xamante ni waaw danaan taxaw naa jàppale naa Jacob waaw. kon Jacob amul jàppale. non man dañ ciy xuloog man sax. autorité Pikine yi da ngay dem ci ñoom. non mais attends lan mooy problème bi da nga duggantewul ak ñoom. non si. xam nga autorité Pikine yi da ngay dem ci ñoom mais dañuy jàpp ne ay kii mbër bu ndaw la ak yooyu noonu. Mm-hmm. te man loolu laa waaw man loolu laa doxewul man soo may jàppale da may jàppale ngir yàlla te yàlla tax bul séntu si man ay kii su ma xewlee lii dafa war a ñëw ak yooyu noonu ku xewlee damay dem mais am na yoo xamante ne néew ma ci je suis apolitique na ma yàlla jégal sax si wax ji ndax ñëpp a war a politique mais man je suis apolitique parce que damaa gaaw a moo tax du dugg ci ay détails yu bari. wax di sant sama xarit ku ci mel ni Pape ñoom Siri Baye Niass Thierno Papa Fall Omar <laughs> ñoom gars daal bàyyi leen sax daaw ak daaw. mais préparation combat bi nan nga ko doon waajee parce que gis nañu bi nga ñëwee jàppante ngeen mais combat bi yàgg na bëri ngeen ba mi-temps mais gisuma ci yow fatiguement suñu fatiguement te man ci biir reportage maa ngi wax ma may naan coono commencé naa dugg mais gisuma ko ci yow. nan nga doon waajee. rek six séances sax dama ko doon def par jour. non six séances mën naa nekk. du raw loolu mën naa nekk. damay jóge entraînement léegi demaat. ñu woowaat ma ma toog xalaat ne Boy Diobass laa war a bëri ak nit ñi luñ ciy wax ma wooteewaat beneen coach ne ko saay dama bëgg a entraîner mu ne ma xanaa sonn ma ne ko sonn ma te yàlla xam na ni coono gu ma doon daj sama yaram ëpp na moo gisoo ba mu ma wooyee dama doon nelaw. nga ne ma saay xanaa da nga sonn lu ma daj ci combat bi ëpp na dama doon jóge dëkk ak dëkk di dem entraînement ji. ndax Boy Diobass donc pour am ndam kese pour sama xarit yi may àndal pour ñu sëggi tuuti rek loolu képp la. tegal foofu sa baa ma ñëw euh, yow ñu gis la tamit nga jugee ci combat combat ba yoon coow ndax jëloon nga booy bi nga xamante ni mooy Saba ñu ci bàyyi euh, defe naa ne amagul woon defet yaa ko jox premier defetam mu nekkoon sa premier grand combat nga ko doon waaj naka ngeen doon waajee ndax bi ngeen ñëw ba ci biir géew bi euh, li ñëpp yaakaaroon ne moom ngay doxalee yow ci sa pièce ci la tàbbi. waaw di sant yàlla rek di sant sama coach Rone. Mm-hmm. di santaat zil di sant waa écrit bu baax a baax a baax di sant suma mag suma lépp muy la dëgër de di sant jéeri borom saal si Alioune Sow parce que ñoom ñoo ma teg li nga xam ne rek tey jii nii amoon naa yaakaar ne booy bu làmb ji demoon ba suba duma daan parce que moo tax ma téye sama bopp. parce que bu làmb demoon ba suba waaw saal bi ñoo la ko teg. wala paa yi ñoo la wax la fi ba suba du la daan. maanaam dañ ma ko teg. Ah, coono gi dama koo daj. téyel micro bu baax. damaa daj coono gi quoi dama koo daj bu baax a baax a baax moo tax xamoon naa ne bu ñu baree fii ba suba moom duma ma daan moo tax ma bàyyi kook làmb ji. ak nekk gi mu nekk ndaanaan yëpp. waaw moo tax ma bàyyi kook parce que sama maam daf boo doon faral di wax naan bu kenn gëmul gëmal sa bopp. Mhm. parce que làmb ji dama koo jël ñu bari naan ma war woon jël làmb ji. Mhm. parce que booy bi am na gàllaaj am na ñaan day xam ay. dafa nekk ci yoon waaw xam nga wax yu bari ma koy dégg. mais man xam naa ni maykan bu kenn xamul maay kan man xam naa maay kan. nag yi ma doon gis yow yu ci bari bi nga ñëw ba ci géew bi dafa mel ni bi nga ñëw ba ci stade bi dafa mel ni yu ci bari da nga limité sa bopp ci biir làmb ji. Mhm, dama jël làmb ji jox ko moom dama jël làmb ji jox ko parce que ñëpp dañ may woowee si diaspora bi sax naan ma am nga làmb. Mhm. am nga làmb dëgg dëgg dëgg. te man nag balaa maa gën a nekk gaynde nga ne ma am nga làmb. waaw te man chaque jour damay bëgg loolu damay bëgg ñu naan am nga làmb mais pas ñu naan Macha yaa mën kii wala. mais sa combat dafay faral di gaaw jour boobu est-ce que dàqoon nga ci combat bi gaaw. parewul ma woon sax pour noonu. billaahi wallaahi xaw. ni nga bëggee pare woon pour. gaw ni combat bi dina gaawee noonu. musuma ko yaakaar. loo ci doon xaar. dama doon xalaat bëri xeex. billaahi bëre ak xeex yëpp laa. programme nag dañuy wax Mathieu dafa bëri mystique su ñëwee doo xam fooy taxaw doo xam ba boo daanoo daal ba noppi ngay doo xam ne maa ngi doon bëre wala maa ngi doon jëflante. waaw mais làmb moom xam nga fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi wax yooyu parce que Mathieu si ginnaaw bëri na fi làmb yu métti. bëri ba ñëpp di yuuxu ba temps bi di a jeex kenn citewul ci sama combat yooyu. albarka bëri naa ak moom stade arène nationale làmb ju yàgg ba arbitre di waaj a sifile. bëri na albarka kay waaw arène nationale. non bëree ba albarka non ba làmb amateur yëpp taxaw déggoo Mathia dafa am gàllaaj mais après lu ñuy gën a progrès di dem ngay dégg ay wax Mathia dafa am gàllaaj mais moonte Mathia ñu muy bëreel dañuy dem ñaan mm-hmm. man ki may bëreel moonte ñëpp si ñaan lañ ma rag lañ ko ragalee. Mm-hmm. koo wax danaan la moytu ki ngay dafa am ñaan. mais am nga ñaan. man maa ngi gërëm samay mbokk di santaat ñi may ñaanal bu baax a baax a baax parce que xeebu ma leen. non dama laaj am nga wala amuloo. xam nga am naa am naa ñaan. continué xam nga la moo dama am ñaan parce que dama am ay mbokk. Mm-hmm. te samay mbokk seetaanuñ ma. mais Mathia koo xool esat bu simmeeku doone kii entraîné wu loo tax mu war a daan kii. doo ko wax. loolu moo am na. Mathia musul simmeeku làmbam ñu ne kii entraîné wu lan moo tax mu war a daan kii kon après loolu dañ koy fàtte dañuy ñëw indi affaire gàllaaj te làmb doxewul noonu. mais nag ngeen bëre nga daan ko mais ñu ci ba ba ci moom Sabaa nee na jël amul. loolu moom toll ci recours bi jot na dugal recours wala déet. non dugalul recours. loolu dugalul recours mais yow loolu waxtaanoon nañ si seet si nga ma sama ko ñu waxtaan si ma woon la lu gën a leer loolu sama téléphone. <laughs> kon dañuy jàll passe boobu nekkaat ci dinaa ñëw ci loolu ndax biñ ci jugee ñoo ngi doon dox sa combat mais euh, gars yi nee nañu dangaa daw parce que da dugg foofu daan fa benn booy. ñu duggaat daje fa andilaat beneen boo ñu waxtaan bi ngeen juboo mais dégg naa dangaa daw foofu dinañ ci ñëw dinañ di nga ci leeral mais ma ñëw ci combat bi nga ñëw combat bi ngeen lewaatoo bëre stade bi yëpp jóg mais ñu gis la euh, chaque jour yaa doon def kele chaque jour yaa doon tànte lan la woon li ne la booy bi dafa mën a bëre moo tax mayuloo ko mu bëre wala nu mu demee noonu. non su nekkee bëre bi rek xam naa ni dàqu ma ko. Mhm. ndax su nekkee day wàcc si lutte simple yi man tamit damay wàcc si lutte yi. mais mais dafa ne dañ ne ko Jacob dafay wàcc lutte simple yi mu ne musul jël dara <laughs> loolu la wax. mu ngi koy waxati waaye li ma jël xam naa ne moom xaaj bi xaajaat bi ko si lutte simple su ma doon compter samay drapeau lutte simple moom du compter ay bosam. simple yi amul ku ma si bëriwul. ñu may dégg maa ngi wax. man kay dama lay gis. fu nekk dama fay wàcc di bëri si damay sol sama saak du ma yóbbu comme ni ma ko wax. lutte simple bi demuñu si pour gagner suñ si doon dem pour gagner ni ñuy déggee nit ñi. fa la ñuy déggee dañuy indaale ay galaaj lutte simple mais suñuy dem lutte simple benn saa mais mais dafa am loolu am na ñoo xamante ni mbëru lutte simple la soo leen fa fekkee dañ lay wax sax. dana naan fii du sa place. waaw mbëru dóor nga yowoon si dóor bi mais ñun dañuy dem foofu pour compétir bañ a perte repère. ndax làmb moo doon loo xamante dafa complexe. Mhm. soo toogee un mois bëri woo rek da ngay fàtte lu bari. mais ñu gis ngeen bëri. bi nga bëree nga jàpp nanguwuloo si gi nga jàpp def tàndkele moom mu favoriser xeex bi. Mhm. ngeen xeex lu yàgg mu yóbbu la àddoo mais bi ngay dem yaa nga naan supporter yi ndànk. Mhm. ndax boobu xam nañ xam nañ ne moom métti métti moom mooy bàyyi mais man du ma ba man xam naa loolu. moo tax gars yi di yuuxu man leen ndànk rek sama bët yëpp su suulu woon sax su ma ko jàppee dama koy daan. mais ñu dem ba ci biir làmb ji ñu gis ne benn bët bi moom daanaka éliminé wu na boobu gisatul. wallaahi. gisatul mais fi nga doon jàpp dafa sooy mais munu munuñoo gis nga nga nga nga réagir. Mhm. te ngay jàpp moom defe naa ni sooy na trop. du leer ndax dafa niin moo tax bëgguma woon jàpp feneen fudul ci ginnaaw ngemb gi rek sama loxo bi soo xoolee. xanaa bi suñu loolu sama loxo bi non. arbitre def nañ seen devoir làmb nit rek lañu am def nii def nii après ñu passé. mais am na yoo xamante ne duñ la mën a def nii bu nga xam niiraay bi nga nii. mais saa yi lu mu diwoo tamit man mënu ma la wax sax lii la diwoo. kon boo jàppee day rëcc. non day rëcc moo tax nangatuma jàpp feneen lu dul téye ba mu dëgër bugg a def assuré waaw. di sant sa papa bu baax a baax ndax coono yëpp moo ma ko teg entraînement yi ak sama coach yi waaw presque kante Codé coach su saw Maris gii dama fi daan entraîné jóge Maris dem Liberté 6 entraîné waat fa jóge foofu dem Wakaam entraîné waat fa dem ay dëkk yoo xamante ne yu sori pour entraînement ah, kese. fi ma lay gis ngay entraîné bari kese chaque jour laa la lu maximum damay def six séances moo tax su ma tëddee pour ma yeewu sax problème lay doon mais appel su jugee rek damay jóg nekkaat si waaw di sant sama soxna si bu baax a baax a baax a baax jàpp ci làmb ci ak ay mbokkam ñu si mel ni Mariétu ñoom jeewo faat koket waaw ak famille waa jamono yi maa ngi di sant bu baax a baax baax di sant sama waa koñ tamit di leen masaw ndax coow làmb moom dafa métti torop mm-hmm. di masaw sama waa koñ baax a baax ak maris gii fi ma dëkk di sant sama gaay yi ma fi àndal ñëpp. di sant gaay yi fi àndal ñëpp fi mu toll nii moom xam naa ne war nga doyal ci booy wala booy des nañ ba léegi parce que defe naa ni am na keneen ko waroon toog fii mais tey damaa xëy woo naa ko 52 appel nangul jël. dëgg non ñu ci kenn kuñ làmb booleel rek. ñun moom dañu fay nekk pour làmb. waaw dañoo bàyyi suñu jàng viser làmb pour tere suñ waaw. Ama Baldé fu mu toll. mu ngi ci essai kañ ko parewul ni dooto pare. wax ne Modou Lo nanguwul jàkkaarloo moom jàkkaarloo nañ xam naa ne ku ci nekk peese na moom. non moom ku parewul dootoo pareeti. waaw comme nu la waxoon rek moom moom ku amul entraînement pour nga daan ko day xaw a métti mais yàlla baax na ba la tëree rek jàmm su am simmeekoo rek di dina xam ne kii pare na pour keneen ku dul Modou Lo sax. lan moo tax ñu dox sa combat nga jóge ci ndam. ñu dox sa combat ba ñëpp ne ma ci am na combat ñu jékki-jékki nga daw ne bëreetuloo daw avance da ngaa ñemewul booy non man làmb moom aw ma ko ciy ragal parce que man si banlieue dama koy leeral sax digganteem ak Kaaw Gourdin la woon ñoom ñoo woon ba nañ ba juboo ñu jékki gis Kaaw Gourdin dem jëli wala di ñëw. waaw ah, man làmb amuma lu ma ciy ragal. Mm-hmm. parce que man ci banlieue laa juddoo si kàmb laa juddoo. muy Medina Gunaas di leen sant bu baax a baax a baax parce que li ma doon tey rek ñoom la waa mbaar mi sama booy dañuy sonn ci man trop trop trop kon man awma lu may ragal ci làmb di félicité monsieur le maire Baydi Ba di ko félicité bu baax si élection maire yi mu gagné di félicité ay dara tamit mérito na ko moom tamit maire ville Guédiawaye bu mu gagné maa ngi ko siy félicité bu baax a baax a baax sama xarit la sama lépp la maa ngi koy félicité di ko ñaanal yan bi yàlla na woyof ci kawam Kaw Gourdin làmb moo ñu boole woon mm-hmm. mais man dama am staff am ñu nekk sama ginnaaw am ay kilifa yu nekk sama ginnaaw man mosuma waxaala làmb joo xamante ne man damay jëkkëre ñu ne ma am nga combat man noonu laay defee ci làmb mosuma ciblé mbër mosuma ne mbër mii laa bëgg a bëreel mosuma def nii damay jékk ni woo ma téléphone Abdoul Ahad woo ma na ma maca yaax diw taxaw na lii laa am nu sama combat Saba taxawee noonu la samay combat di taxawee dama nekk mbaaw am yu may lijjat ñu woo ma dama yaax Saba taxaw na aw ma si waaw aw ma ci déet parce que am naa kilifa yi nga xam ne bu ñu nee waaw ba pare rek amatuma lu may wax waaw làmb ji na làmb ji. mais la moo yàq combat bi. waaw làmb ji lu koy yàq daal mooy problème mu prix la dala laa laa yaakaar. waaw parce que loolu la ma laxaat wax problème mu prix la si lañ nekkoon di débat loolu moo yàq combat bi jamaykee ko bëggoon mais ba tey jamaykee teggul tànkam parce que am na lu ñu wax soo amul sens sax dinañ def jàkkaarloo si combat le 20 mars bi parce que mu ngi ci mu ngi si démarche mu ngi ciy wax. non ci wàllu prix la mais man dégg naa ay du ma bëri spécial grand combat laay bëri. waaw loolu yëpp da nga da nga dépasse spécial. non non même pas làmb mënu maa dépasse spécial. parce que defaguma ci làmb lu tax ma war a dépasse spécial. mënul nekk mais xëy na ñoom ak staff bi ñoo doon waxtaan man grand combat lañ ñu waxoon ñu dawal ba ci biir date amul ñu ne dañ koy dugal ci combat Gora Sock Fils de Balla. combat Gora Sock Fils de Balla boo gisee mënu ci bëre mooy Fils de Balla daf bokk ci man. ñi may jàppale ñooy jàppale Fils de Balla en plus le 20 mars la sama rakk boo ñaamu ndaw. da see war a bëri rëm. grand combat mu doon suma raq bi nga xam ne bu mu bu bëggee làmb sax maa tax. Mhm. parce que moom ma doon ñawal samay gàllaaj mbapat. kon tey jii premier grand combat mu war ko bëri euh, arène nationale le 19 mars kon man waruma jël combat le 20 mars su ma jëlee combat le 20 mars rek day am lu muy travailler. ba pare ñu koy jàppale ñoo may jàppale ñi may jàppale ñoo koy jàppale ñu bokk benn koñ. Mhm. fi may ngémmoo fu muy ngémboo mu ngi mel ni kër ay kër ñoo dox suñ diggante ay kër. Mhm. kon làmb xaju fa. mënul bëri la 19 ma bari la 20. mais jamaïcain moom comprendre na xam na mais du question man dama daw diw wala dama daw diw booy bi laa bëgg mu nekk conscience tranquille bëri làmbam yàlla may ko si ndam parce que ndam lañ koy ñaanal si premier grand combat parce que champion la xale la buy door kon tey ji bu amee premier grand combat dañ ko see war a pousse. dooleel ko ñëw ndax moom jël na combat boo xam te ne defe naa ne rëm moom ñëpp ko fi bàyyi. kii ñu def 2 giga. Mm. mais da nga am ñaata 9 combats. Mm. ki am 8 combats dem gis nga combat moom nee na bëggul lu metti bëggul lu yomb. mais yéen ñaar ah. yàlla dama ci yàlla musal. bëggul lu yomb de yéen ñaar diggante Pikine ak Guédiawaye ñeme nga kii. man nee naa la aw ma ku may ragal ci làmb wax naa la ko samay wax. ñaar man laam mënu ma ci ragal kii laa wax de Jacob man ne làmb aw ma ku ma ci ragal staff bi laay déglu liñ ma wax rek loolu laay def mais amul ku may moytu si làmb boo xoolee samay combat maa ngi koy wax kenn mais est-ce que est-ce que ko bu ñu ma ko avance bu ñu ko joxoon nii ma dem reeraale ma dem def si reer def si ginaar jox waa mbaar mi bilaay avance Jacob bu ñu ma ko fëggoon nii ma dem si mbaar mi lan moo tax nga ne du jël sa avance jox ko gars non lan moo tax lan. <laughs> xoolal rek koo xam da la boo tax. mais moo tax mu ne man du ma jël avance am. avance bi ma jaaxal ba xam Macha dañ a indil ne ma jël avance am. man de suñu ma joxee avance moom dama koy yóbbu Touba ziar si sëñ Saliou ñaan si samay soxla am ci ndam. moo tax du jël avance bi moo du ma defaat leneen. kii wu gën a neex a bëre ci àdduna. Ousseyn. <laughs> waaw di sant ñëpp. lan moo tax nga moo tax ne moo a neex a bëril. Zagob day wax nii rek. <laughs> mais Zagob ban kii Serigne Bamba. xam nga ne tout bu Abid wàccee loxoom day daw ñëw. bu nekk ak ni ma koy bëri. Hmm. man moom très intelligent moi. Hmm. su taxawee xaar gars combat bu nekk ak ni ma koy bëree. soo dee seet ay caxabal. non boo dee seet samay combat première. su ko indee sama. sama wuyu ma Ousseyn. waaw moi il est très intelligent. gis ma nii rek. làmb bu nekk sabab bu ñu bëree. ma dofloo ko ci bëree. dama koy dofloo. incha lu garaaw laa lay wax de. <laughs> sabab xam nga li ma wax. la ca baab koy jël. waaw loolu la yaay yaay surtout Faalaay Balde. man tepp tepp moom fu muy wax nii man dama faa bokk man doomu Kolda doomu doomu Bantangel doomu Siklo doomu Saare musaa man sama yaax sama papa biir Kolda lañ dëkk. xam nga ne Ama Baldé Ama Baldé lay kontaagal. waaw man mi di kontaagal la dëgg dëgg la këx bu fi ñëpp bàyyi. borom ràcc maasaalu duutir ku la neex wax maa tey këx ba bi nga xam ne koo wax avancé mu delloo ko. loolu de am na moom te làmb ji moom doo nga ci am benn defet. waaw dama kan moo ko si daan te defet boobu leeru bu doon keneen la duñ ko ko jox. leeru waaye lan la leeree. defet boobu nag moom mu ngi nii. non ay wax yi ëpp seen rek laa déggee. moom dëgg fa toog. boo ma nee ay tegu boo fa maag moom la ñuy wax. waaw ay. mais lan moo tax nga ne ñemewul jël sa avance. ay contact ak la déggee avance yooyu noonu amul solo xam nga la solo. arbitre bi ni bi ñu nekk maa moom si digg géew loolu am solo. man xam nga ne ma loolu waaw man moom ragalu ma loolu bi rek. man moom arbitre bu nee prix waaw man moom arbitre bu nee prix su nekkee tànk moom dama jox moom génn sama digganteeg Zagob mii <laughs> arbitre na prix génn sama digganteeg Zagob barki mu xam ne lu ci neex yëpp maa koy def. est féex la kon <laughs> kon soo demee jëlal avance bokk. lu ci neex maay fecc. waaw maay animé. maay bëre. maay daan. la damaa xam ne Jacob pour mu am combat sax. problème c'est un tout un problème. ma Jacob combat am du problème de. du problème ban problème la. <laughs> ñàkk adversaire moo tax ma jël Boy Jobaas. parce que wax nañ ma six adversaire ba sept yoo xamante ni ku ñu rek deux ou trois jours. boobu de seet si wuñ ma moom. laat waat ma ne ma. saay muy loolu de. boobu de man Pape Diagne waaw léegi xam nga xam nga kañ ngay xam ne kii dama koo xam ñeme ko. Oh. déedéet xamaguma ko de. bu muy tëkkoon tex dernière manicure ñoom ñaar si. arène mhm. maa ngi toog na laxaat mu ne ma naam ma ne ko combat bi du combat tasal combat bi jox ma Zago Balde. est-ce que kon yàgg nga laxaat may dégg amateur yaa ngi may dégg kooku di indi manicure nu mu tudd sax te mu yor affaire sociale am mu ngi toog. Jéy mi ngi toog. Gibson mi ngi toog. Eh. baa waxoo Baba Diaw. Baba Diaw. mi ngi toog ma ne ko. Gibson na ma nii. su yéexee ci moom la yéexee. buggee moo woo laat léegi mais xam nga góor moom daa war a saab kàddo. waaw nag loolu li nga wax ni loo importance la. parce que gars yi dañuy toog waa waa Zago Zago. nga ni suñ ma joxee avance. ma yow da nga wax na ci ginnaaw ñoo ñu indi ko mu delloo. non mais li mu wax ni lu am solo la. waaw ma ne ba xam moom dafa mës a dégg. waa déglu ma wax waxtaan nañ ak moom. ñu dem mu yàqu man combat musul ci man. waa déglu ma wax déglu ma wax. barki alxuraan lu la dal si kaw gurdee. combat musul yàqu ci man. lu la dal si kaw gurdee laay bañ mu dal la. kaw gurdee dama dal ci ngay dem say staff nan la. non bul jël kii sama combat yow du staff. naa ko. Ousseyn mun def ko léegi mu wax. ñu ko léegi dinañ ko woo après. dinañ wax di. man nee naa la làmb laa la su ma demee ba si xalaat zago ma dem Casamance Kolda. kon dem ca tool ya di bay. kawansel nag. <laughs> mu commencé da kawansel wala déggoo ma su ma demee bay suuraale sagub mii di ko xalaat ma dem Kolda. di bay léegi li ma bëgg a xam mooy lan moo tax muy dëkkanteeg jéen euh, mbañik koon du moins ndax moom xam naa dafa bëgg jéen. non non xel mi kii boobu dëkkanteewu ma moom de. mbañik ondu la foofu. la ñëw di sonal man dama ko doon ñëw di ko wax kii grand la bàyyi ko mu toog mais gars yi dañoo yaakaar ne woon jour boobu damay dëkk Manick ah, ñaar daal fa lañ nekk. di non non di ko tasal combat bi. fekk na bëri ba moo wàcc si suuf nag yaakaar ne man dama koy sonal wul dama koy dëkk ak noonu man naa daan nit ba pare tourné di ko dëkk. mais nee na combat bi léewul loolu moo foog ngeen la. déggoo mm-hmm. Manick seen écrit kenn moo fa dese muy jéen kii comme moom demoon na ba wax loolu. laa jéem xelam bi yëpp Ama Baldé ci nekk nag. loolu man tamit sama xel bi yëpp jéem ci ne. loolu mu nekkee si Ama. dañuy mayante loxo rek. comme moom tamit pare pour bëri man wax dëgg fa ne yàlla maa bañ sañu maa toog naan maa ngi bañ. maa ca gis ko muy dëkkante nga ñeme ko. te mbañ nekk nga man dama lay wax su ma neexoon man tey. Hmm. ma dem tànn ci mag ya yow xam nga li ma la bu baax. Mhm. samay morom a fi am cinq combats six combats dem wëri mag ñi. Ah, samay morom rek ko fi am. Mhm. mais soo gisee ma tànn ko moom jàmbaar la. te man jàmbaar danga may neex pour ma jàmbaaroo yow. jàmbaar bi daa wuteeg yeneen jàmbaar wala déggoo ma man jàmbaar laa mën a jàmbaarool. man la jàmbaar gi daa wuteeg yeneen jàmbaar yi. xam naa li ma xam naa su may bëreex moom dina dëggal boppam te kii bu dëggalee boppam barki Muhammad ma def ko lu ma mës a def mbër. yow du ma dëggal sa bopp damay arrière. <laughs> yow doo bëri damay arrière. yow sañoo loolu. <laughs> déggoo li ma la wax. non Jacob sañoo loolu. sañoo arrière non non boo xamante ni. Hmm. sa direct première sët laa lay wax ni te la ca maam sët koy jël. sa maam lu ne ci moom yëpp a ngi ci man ba léegi man bëreeguma sax ndax li simple yi sax laay gën a bëree ndax foo laay jàppante amul dóor yooyu noonu mais kii su yaakaaree nii. <laughs> mun na ma yëngal mu ngi daax boppam donc man làmb amul ku ma mënta yëngal. ma tey maanaam amaana tey jii. yaa ngi naan mën na ma yëngal man làmb ku taxaw naan ma mënuma maa yëngal ak maa xamul. daanaka parce que kon yow xamoo ma. boo taxawee man tey naan ma kii bu yaakaaree ne mën na maa yëngal yow kon xamoo ma. yow xamoo ma yow. réeré nga ma mbir nag yow bu doon bëri nii laa lay daanee ba ñibbi sama kër nga toog arène nationale bu xulleeku. bul ko sax xalaat. loolu la loolu la ñu yow bu doon bëri man ak yow dama lay daan ba nga nekk arène nationale. Hmm. naan se comprendre pas. di làkk ay ay américain. est-ce laa wax. Hmm. dama laa xeeb. saa waay su ma la xam nga ñaata séance laay def par jour dix séances. yow mënoo def dix séances boo ko defee da dog balaa ngaa bëri ak man doo bëri si da dog nga ñëw ma xëptal la. wallaay su ma la jëlee dix séances yow. waaw yow waaw ñun ñëpp ay sportif lañ. dix séances mënul nekk trois six séances sax xam nga ëpp na si sportif man ñaari séances laay def damay xëy dem diin ngoon nga ma dem contact. wala ma xëy dem saal ngoon nga ma dem contact. looloo dal sa xel te ku ma simmee koo estade ñëpp ne kii entraîné te ku ma ne rukkum eh. ñu daje nga xam ne daje nga xam nga yi raas ndaama la. lu leer la dafa yomb. fees dafa yomb soo gàttee centre de gravité day jege suuf si. waaw moo tax. pour nga fees day yomb. mën nga musculer nii gars yi yaakaar ne am nga doole. wallaay su la jàppee nga xam ma doole. su ma la jàppee laa la yomb ma man xool ma xool ma. su ma ma doole. <laughs> aw ma allah boobu yaa ngi liggéey. Ah, sans face eh, waaw sans sa face eh, sans eh, dara bu ñu dina xam. sans face sans dara. mu ngi liggéey mais mag la. mu ngi soo demee ba ñaaw ndaw sa booy la kañ moo ñaa bu ndaw day xale. ñaa bu ndaw xale bu ndaw la. waaw ñaa moom kaay mox la leen la leen eh kaay mox la leen de sabab. lamb dama lay tënkal dama lay tënkal leen rek. dama lay tënkal dama lay tënkal leen may ma tënkal la leen rek. su ma nee ñaa bu ndaw su ma raq la. Mm-hmm. bul juger foofu noonu ne mag la. ñi may seetaan man àddina ñu ma xam ñi ma di ma seetaan xam nañ ne kii tojagul si kii mais ñaa bu ndaw xale la yax baa jug ma nga mu xam mag man écrit waalo maa ci gën a nekk xale. yii mag a <laughs> lu garaaw laa lay wax. <laughs> yow Sokone moom moom moom. ce que. Sokone moo la mag. billaahi moo ma mag. taw nañ génnee licence yi wala carte man ba may bëri arène suma premier combat arène xool jotuma def bëri mënu ko parce sama âge ma ko. dama xool sama premier combat arène jaaju or 12 ans bëri simple laa def premier combat bi des yëpp door la man rek def simple parce que aw moon âge du def bëri dóor. ok mënoon am licence. waaw ah, mënu moon am licence licence simple rek laa mënoon am. licence Fra. sama licence. sama kii bi nekk CNG. ma waa CNG dégg sax si wax beneen carte d'identité fa ne. Hmm. ndax dama doon jàpp. waaw may am ah, licence. ba may am licence mag de. Hmm. ba man maa ngi doon jàng. ay xale mag yooyu. amul sens amul xam nga la moo am sens. nga bëgg a bëreeg man. ma bëgg mais kaa ma nag. te wax nga ni bëgg nga bëreeg. yaa ko suñu ne nag de bëreeg yow. wuy ma suñu la seetsee. xale yi ma la avance. wuy ma ba pare nag ba noppi ba noppi nag damaa bëgg. leen tamit mu leer. waaw ñu seet si leen. nga naan cinquante million laa bëgg. ba eh waaw saa yi. woon Abdoulaye nga def ko haut-parleur. presque maay gën a néew leen ñu may lu may fayeeku ci làmb man. ci mbër yi nii nii nekk fii man néew ma fi di wax ay millions lañ may fay yooyu su ma tollee si fayeeku million damay fayeeku million force Mmh. instant yi xam fan lañ toll ci wane suñu bopp. Mmh. pour yéeg fekk ji grand yi. moom ñeme na ko ñeme naa ko nañ ma ñeme naa ko nañ dox combat bi léegi léegi nga woo laat. may bëgg bëggul rek mais maa la gën a bëgg foofu. <laughs> waaw yow bàcce yow. may bëgg bëggul nii rek. wallaay bàcce yow a téeméer junni yoon. xam nga est-ce que xam nga benn affaire. xam nga sama gars yi lan lañ ma wax sama ba ma bëree ba ma xam nga gars ma wax. bu bëri ne xamuñu ko. Mm-hmm. mais kii xam na ko. kii ne est-ce ko woo mu daw ñëw. lu leer xam ne mooy loolu. daf ma woo. ba léegi nii trois jours laa sama bët bi dafa fàtt. gars yi ñu ngi may woo téléphone foo ne yow bi maa leen saa benn bët laay gisee te su ma ko fàttee sax du ma doxati damay mel ni gumba mais mooy loolu zos de bi ko bi ko bi ko bi ko bi ko Alioune Seye dóoree toog naa ci wetam nii ñu waxtaan maak moom li ñuy waxtaan ba noppi keneen ñëw mu ne ko Ousin de maa nga doon waxtaan ak moom mais dafa mel ni jug na dem ma ne ko maa ngi ni toog maama non loolu mënul nekk maama non loolu foo toogee ma ne ko noonu da bu baax maa koy nuyu bu baax a baax moom sos mais nag sa diggante kii defe naa ne euh, combat boo mën a taxaw la te combat bu neex la waaw ñaan ñu bëggante mhm. day neex a taxawal moom kañ comme lu ma la wax rek bu mu dem ba ci biir naan. Jacob baal kaddu gii nii. yàq wax naa la li ko yàq expliqué naa la yàq du question de staff question de ñaamu ndaw day bëri le 19 la ñu bokk benn kon man may moo combat jamaïcain bi la 20 mars la hmm. lii la 19 mars la mënul nekk samedi ak dimanche la mun nañoo maa yow mun nañ ko arrière sax. xam nga ni def ko ay le premier mars yow yi. non yow maa yow bu nekkoon dimanche bëgg naa. mën a ne. bu nekkoon dimanche bii bët bi damay dem gars yi. Eh, su ma doon bëreeg moom non xam nga lan la. su ma doon bëreeg moom. Mhm. du ma ko dóor ci bët. ndax naa xool deret bi quoi mbokk pël la. dama koy ba dama ko dama ko dóor si bët barki Serigne Bamba mun naa bëreeg Zagob ba pare te du ma ko dóor. est-ce que. te dama koy daal. <laughs> kon de dafa am fit. billaay Zagob mun naa bëreeg moom ba pare. bëre du ma ko dóor ba xeex du ma ko dóor moom chaque jour sama devise dama la koy wax sago man damay bëre génnee gauche waaw teel dama lay wax ci arène bi waaw sama devise man dama la koy wax benn loxo génnee gauche la droite oui ma man sama devise dama ko koy wax pour mu teel kaa xam man sama devise mooy lan pour mu teel kaa xam lu may daj li ko raw ngay daj da ngay ñam coono gi ngay ñam moom doy da day waaw ñu fay la fay ma nga ni doo doo mos loolu moom mënoo ko nangu non loolu moom du ma ko nangul benn góor da daj may daj yow gis nga ni bu ñu bëri woon dinaa daj. lu raw lu safara di daj. cin lu muy daj ci safara. lu ko raw ngay daj. gis nga loolu yow lu ko raw laa lay wax nii. pour neexal nii rek gis nga ni dinaa daj. Mathia. barki Serigne Saliou Mbacke mi ma yaakaar sëñ Saliou képp laa yaakaar. su ma la jàppee. wallahi di nga di nga da ngay yéemu sax. Zagob Mathia ngay wax. combat bi su yéexee laa lay wax su yéexee. mais Zagob buddi laa lay def su yéexee laa la wax buddi. Zagob man mbër du buddi ci àdduna. Ousseyn mii bu man mbër du buddi yàlla baax na. Zago man ku ma duma si làmb ma daan la man kenn duma duma daan ma. kenn duma bëreloo daan ma. kenn duma bëri nii ci arène bi. Mm. saa waay sa catu ngemb gi su ma ko jàppee sax ñu fori la. mun naa taxaw Jordan jox la ngemb. yow doo taxaw yow da ngaa gàtt. yow jarul Serigne Bamba mun naa la wuy ma wuy ma waa léegi comme que du ma taxaw. su sigee taxaw rek man damay waa léegi comme que mu ma taxaw. mun naa ñëw yor la ba nga jàpp ngemb. est la. mun naa la yoot ba nga jàpp ngeen. ñu fori la. gis ngeen mbokk yi ni lay demee ci jàmmaarloo ñi ñu seetaan promoteur yi wala ñi nga xamante nii ñoo taxawal combat yi lii mbokk yi nekk na combat boo xamante nii combat bu neex la nekk na combat boo xamante ni combat nag li ci gën a neex mooy ñaa ñu bëggante mais seeti kii mu naa la non est ce que dina ma nangu wala boog est ce xoolal keneen mais ñaa ñoo xam te dèjà bëggante nañ mhm. defe naa ne waxtaan bi wala boog waxaale bi a yàgg boog ndax defe naa ne yow ci victoire nga jóge kii ci victoire la jóge te defe naa benn combat ngeen amati yaa ngi ci neuf moo sept huit victoire moom sept victoire tamit combat boo mën a neex li ñaar seen diggante. waaw combat moom man comme ni ma la yàqu ci man. combat bi yàqu ci man expliqué naa nu mu demee. Mhm. promoteur mun mënta ñëw Abdoulaye Khane Ndiaye. mais wool jam. wool jam comme que moo ngi dox sa combat kay na ko oh. na ko gis naa adversaire. non jam du ma ne gis naa adversaire. combat bi dina seetaan émission bii. Mhm. dina ko seetaan. xam ma la dina ko seetaan. <laughs> su ko seetaanee bu ko combat bi arrangé moom dina ko tëgg. promoteur bu combat bi arrangé. Macha nga ñëw tëgg ko du dara tax ma koy wax de. mais Jacob Baldé Macha rek foo ko dégg. Mhm. da lay jaral. man waxuma la su la neexee sax nañ ci boole yeneen combat ñu bëri maag yow premier combat teewul supporter yi suñu bëree ba pare dañuy dem xam ne maag yow dañuy bëri combat bu neex yow soo yaakaar ne sama combat ak yow day yomb. man tamit su ma yaakaaree ni. Serigne Babacar si bi ma yaakaar. kii bu may bërëx moom mosuma xalaat na day yomb. Ousseyn man mosuma bëre combat sax yaakaar na day yomb mosul am c'est que damay préparer lu ëpp li may bëre. damay ñëw combat bi yombee ci làmb ji. mais billaay wallaay lu ma ko curoon di dajal. su nekkee jël na combat Mathieu Jacob Baldé ma jàpp ne bii yooyu raw. loo mën a entraîner dama naan la doubler ko te man saa yi soo entraîner benn jàppal ne maa ngi entraîner dix chaque jour dama la koy wax. Euh, bàyyi diis bul nax télé téléspectateurs yi <laughs> bu leen nax. non dama lay wax rek bul nax télé ki ki kii téléspectateur kii. gars yi xam ñu ma wax xam li may wax. yaa sa xel bi. non xol bi boo dee damay entraîné ay dix ay ay ay ay ay dix fois si journée bi. téléspectateur kii ngay ngay nax. téléspectateur yi ñoom ngay nax. am nga xarit parce que man. am nga xarit Pikine moom lu ne fa am. am nga xarit Pikine lu ne laa fa am. wooteel nga laajte Jacob ñaata yoon lay entraîné par jour. saa yi damay jugee entraînement déggoo li ma wax woote waat pour dem. man de fekk naa waaw lii mën naa la ko bañal. samay coach laax mais comme tiis yi nga wax man mun naa la bañal da ngay jug entraînement sa xeladu dal. man nag su may bëri sama xel day dal ah, sa a dul dal sama xel dangay xaw a ruux ndax du ma jël ñoo mais man su may bëree à très forme confiance laay nekkee xam moo tax nekk ma la moo tax man dañ may forcer pour may du ma la gën a dañ may forcer pour may xam nga la moo tax man conscience tranquille laay demee Mathieu man demee ma sama conscience tranquille man stress parce que xam nga la moo tax demee ma sama conscience tranquille j'ai ma famille moi moi j'ai pas fait la famille. waaw déglu ma kon man aw ma famille. déglu ma rek non non sax boo waxee loolu day mel ni man aw ma famille. déedéet déedéet boo nee toi c'est ma famille. moi kon c'est pas sa famille. kon il a il a une personne qui le peuple dans le terrain rek. waaw dégg nga kon kay aw ma famille nag sa bopp. non fu ma bëgg a waxee ak yow. fii non non non non non non non non non non loolu moom nanguwuma ko. damaa am sama yaay boo xamante ni dafa sonn. Hmm. te ci man rek la yaakaar. maa ko war a dimbali ci lu baree bare. sama papa même chose. Jacob loolu moo. am ay sa option boobu mooy sama option sa option a teral sa yaay damaa bëgg a teral lu mu war a def si doom yëpp def na ko ci man. ma war ko teral far yàlla def lu gën mhm. kon tey jii nii lépp lu ma ko war a teral dama ko war a teral sama yaay moom rek laa dese moom laa am sa option yàlla la ko yàlla defal amiin yàlla defaraaleel la ko nga am ma am mais bu la tere daa famille yow boo teree sa famille man sama famille lu ma leen def yow saay comme mag yow du question ay xañ ma laa xañ li nga war a am yee alaa kulli aal li nga war a am day jaar sa loxo maag yow yàlla su waxee dañuy bëre fa la force dañuy bëre kenn mënu ci dara kenn mënu mais man damay wax sama option comme yow comme yow li nga wax soo amee combat sa xel day dal mhm. man lu dul dalal sama xel ba may jug di ne loolu laay wax ah. mais ñàkkalu la fay rek yow déggante woo maag yow fu ñuy waxee mhm, dëgg la moom laa lay wax sama papa dafa dëddu àdduna bàyyi fi sama yaay samay raq tamit seen yaay man moom laa yaakaaroon sax sama yaay sama tanta dafa dëddu àdduna bàyyi ma fi ñaari raq yu góor zilo pawsu ñu sësu si man waruma leen wan ñàkk fu la waruma leen wan loo xamante ni ay nooy yooyu noonu. li may am dama koy bëgg ñàkk di leen wan ne lii rek a wóor te ñooñu sa yaakaaruñu si kenn ku dul man ndax man may sama taaw papa bu góor. am naa mag bu jigéen mais yaa ma gën a xam. jigéen nu mu mën bëriwul. góor ëpp lu mu mën. moo tax saa waay man la su ma amee combat sama xel du dal ndax damay bëgg a entraîner bu baax a baax a baax su ma simmeekoo nit ñi xam ne kii entraîné na su ma simmeekoo nit ñi xam ne kii kat fii du palaasam fii ngay palaasam looloo tax man la sama xel du daal damay dem trois fois ba six fois entraînement par jour ah. mais pas ay adversaire yu may jël de saa yi ñooy dajante ci li simple yi ñoo la ëpp gën la rëy foofu. mais nag foofu nga juumee gis nga ah gis nga Sakho barki alxuraan yéen ñëpp kenn maa wàcc lu simple. non loolu amul problème xoolal dama lay wax ñaari ba champion nga man lit simple xam nga lan moo ma ko bàyyi lan moo ma bàyyi lit simple man ñun mbapat man ba muy mun naa ne ba muy bëri mbapat Zago bëriwul mbapat loolu moom am na laaj ma ndax lan man dama nekk xale bu ndaw nekk xale bu tuuti di ànd ak ñoom Khalifa Ngiraan ñoom Mambou ñoom Liiru Diagne ñoom Abdou Diouf ñu dëkk benn koñ ñoom bu ñu demee écurie Waalo war a dem écurie Waalo Joseph Correa dañuy jàpp sama loxo dem man may bërintu ci xale yi man mbapatu saaku laa commencé bëri nekk lu ndaw yàlla moo def mbapat lu tax ñu éliminer ko géejawaay muy benn bakkan bu ñu faatoon benn mbapat boo xamante ne ñun ñoo fa doon bëri am ku fa bakkanam rot. Mhm. léegi loolu ba mu amee suñu yaay ñun ñëpp tere ñu bëri ne na ñëpp bàyyi bëri pour nga xam ne damay nekk mbër. may yolleeku nànk di takk ngemb di dem Sangalkam Mambilor Kayar di bëri lii may wax Sangalkam Mambilor Kayar mun nañ ma ko seedeel ndax mbër jóge na fi dem Sangalkam ñu ne ko fii Mathia fi teg tànk. non samp déggoo samp yoo. parce que xam ma la may yolleeku di ànd ak ay benn nit. loolu ay ñaari nit lay àndal. billaahi wallaahi tallaahi du caméra du dara moo tax may neexal. barke Mouhamed. damaa dem sëgg si suuf gi. bëri si lutte simple gi. ba dar. ñëw toog concentré wu nag si arène bii ma nekk. moom laa lay wax nii sa champion kenn du la ko weddil xam nga da ngaa am sa gëm na nee moom ni ngay bëree jaaxaloo. waaw c'est que moom ni muy bëree. moomu dosé am na dama waaw dama ko fooyee. man mhm. peut-être sama yàq sama bëre. Mhm. sama papa Zil. Mhm. maa ngi koy sant bu baax moo yàq sama bëre. bëri cirib cirib ba dugg génn nii nii. dama ko mën ba tellement que damaa wóolu woon sama bopp damay ñëw maye sama wet. ne la kaay. Eh, doo ma si daan maye wet da ngay daanu ba jaaxal. moom laa lay wax moo tax sànq moo tax bàcc sànq ba lay wax. ni nga bëree ni nga bëree ma seetaan ko nga bëree ma seetaan ko. su ma la jàppee ci ngemb. billaay da lay for yi. duñ ma fori. sagam du ma dem fenn du ma yegg fenn. yàlla baax da na xam xam nga moom mais da nga maa réeree mbir lu bari. non comme ni ngay bëree nii comme nu ma gisee mu bëree. parce que gars yi nii. taw waaw fii ay yooyu yooyu noonu. <laughs> na maa daat ba yegg gàlleeb du ma xam du ba daanee. mais su ma ko jàppee ba mu wóor ni jàpp naa ko. ma ca sa tànk yi lu koy lu koy teg ci suuf si du yomb de. pour yow damay daal sa xel mooy rek may buddi. <laughs> yow looloo nekk sa xel Jacob. moo gën a yomb ci yow bu doon bëri man loolu ngay xalaat bu guddi ma. moo gën a yomb ci yow. <laughs> nga wax nii yow nga jël ko fu nga ko jëlee nga dem delloo ko fa. wallaay Jacob ku la conseillé yenul macca ku la ko conseillé ci àdduna laa wax ku la conseillé na yenul macca jour boobu bëgg na nga daanu jël bu rëy. kon kooku man la faral. macca ku ñëw ci yow ne la yenul macca man la faral. macca Boy Zil moo la dàq bëri. non non xam nga tey jii ka ka wax la leen nag yow gis nga wuy ma wuy ma wuy ma foofu boo ko fa tegee ma foofu boo ko fa tegee waaw wuy ma Ousseyn boo ko tegee Boy Zinc moo ma dàq teg na Pokola moo ma dàq bëre foofu da ngaa wax lu la neex wala nga wax pour kii man ñi may contactal ñoo dàq bëri ci àdduna ci àdduna ci àdduna ñi may contactal leen ñoo fi dàq bëri ba ñox ba ay problème adversaire la ñu am cat bu waalo waaw daanaan la Ma Ndiaye Alioune Seye de. ay ndaama rek nga fiy tudd. waaw mais. mais keneen la <laughs> problème. ay ndaama rek nga fiy wax keneen la problème. ay ndaama mais la waxante dëgg bëre la wax. mais nañ doon kus kondorong. mais bëre kat ay bëre lañ mais dama ne. Eh, ñu ñuy bëri soo leen tegee fii ba bari man daan micro bi retour Zaka bee boo demee tournoi ba boo fa dajeex booy doo am dara de booy dañ lay daan ba nga dem booy dañ lay daan ba yegg final nga naan est-ce que booy ñoo ma daan si si làmb séeréer dañuy jël caat bu wàlla barki démb la jëlee ay nag indi booy dañuy jël booy la preuve kii yaa ziya dañuy lu ñuy jël da koy gis. Mhm. da xam ne kii dafa jël mu ngi takk këram nag bàyyi ma njaay ngi takk këram nag te booy boo ñu fekkee ñuy contact école no wax baaxul sax mais c'est que boo tegee yow champion nga. man keroog da ngaa bëri combat bu ma similé boo xamante ne maa ngi toog nekkuma sax ay tribune loose nii maa ngi sëg côté. toog non non déglu ma la barki Rasulullaay ba ngay bëre maa ngi toog maa ngi toog nii si journaliste mooy fi nga nekk ci ginnaaw noonu maa ngi toog dama laa tiim nii bi seetaan. fekk jeex na kon xam nga di seetaan naa la jàmbaar nga jàmbaar nga barki alxuraan mais soo ko bañalee jàmbaar nag lan nga ci gis. déggu jàmbaar laa ci gis jàmbaar dama see gis sam bopp. non maanaam soo jëflantoo ak moom ni muy bëree. ah comme bu ma bëreewoon ak moom keroog jour boobu. day daanu. est que. Mhm. lu tax parce que am lu ma gis lu moom lu bari. Oh. comme moom lu mu naan daf maa xam. Mhm. daf maa gis kon dama gis lu mu lu mu am lu bari. ay faay ay faay yu bari di gis naa ko. force bi. waaw force boobu man kenn du ma forcer. te Jacob day forcer waate. nul n'est parfait xam nga làmb moom mënoo bëri ba daan te doo def faay. Mhm. loolu moom mënul sax am. forcé par force lu ma entraînement dama ko gëm. Jacob li nga entraîné la Jacob gis nga boo boole woon boo boole woon diir boole saal ñu pareex yow dem yóbbu la États-Unis nga ne nga ñibbi si dem Paris dem Espagne nga ñibbi si jàpp ma benn côté danga may forcé billaahi wallaahi ma daal ki dafa gëm boppam na gis ngeen mbokk yi. tax combat bi war a taxaw. non ma nit du ma force nit du ma bëgg def lii dama far force li nga may def. ñu préparé bi taxaw na. di su mel ni Omar <laughs> ñoom Pape ñoom Sidi <laughs> daa Daabo Thierno. Ndol Papa Fall combat bi ndax combat bi. non gars yi ay jàmbaar leen. waa Marissi ñu si mel ni Omar Lamine Balde Pa Diallo Sadio Michel ay ñoom. laay Cheikh ñoom Gara Tafa Gara Diop Gara Babs Père Diaw Samba waa Marissa yi gis naa seen taxawaay bii passé maire Adel tamit même chose jàpp na si bu baax a baax a baax a baax a baax di gërëm ñëpp di nuyu ñëpp ñu si jàppoon waa Pikine yi tamit fàttewuma leen ku si mel ni sama père Cheikh naa Kayta Père Ndiaye moom da see sonn Père Ndiaye daa mel ni doomam laa chaque instant damay woo nii nii sax mu ma doon woo léegi léegi chaque instant damay woo. ful affaire yi toll baa dem nga fii baa dem nga fii man ko peut-être dala la sa xel yàlla baax na mu ne ma da ngaa war a dem ci gars yi ñu jàppale la man ko gars yi kat da ngay dem ci ñoom ñu lay wan ay di la xoole ay bët yoo xamante ni après yow da ngay mujjee sax déplané wu mhm. te ñun ay mbëri ndaw leen dañuy tàll nit ñi loxo pour ñu ñëw jàppale ñu mais bu ñu xool ne kii dafa réservé wu rek waruñoo dugg ci moom wala ñu te man sama buntu ñëpp laa ko ubbil waaw sama booy tamit tout tànk yi dëkk Pikine fu ma mbër yàlla nga am ndam mbër yàlla nga am ndam ñooñ su ma leen xoolee rek sama entraînement dama koy gën a yokk di multiplier chaque jour waaw waruñoo wane daal ñàkk fu la sama papa yi tamit maa ngi leen di gërëm baax a baax gis naa seen taxawaay mel ni sama papa Zil moom day sonn ci man lu mu mën a am ci àdduna defal ko teraanga mu gënal ak jabaram sama yaay sax laay wax moo sama tante Ndéla maa ngi koy sant bu baax a baax sonn na sonn na ci baax a baax a baax ak waa këram waaw ku si mel ni bébé say tamit. ñu ngi koy woowaat ndax daanaka maag màcca taxaw na. Mm. <laughs> maa ko ci woowaat bu baax bu jàpp ci. waaw di ci woo sëñ Mor Thiam borom Mbacke Bawol multi service mu ñëw jàppaat ci moom tamit bu baax a baax a baax a baax a baax ak fii nii kuy jaay jant bi Ibrahima. Mm. waaw muy Touba waa daan xaw nu ñu koy waxati waaye Pono. waaw Pono gentil moom moom waaw moo nekk Maris. di wax gars yi ku bëgg Zante bu baax rek ñëw ci moom moom ñoo bokk koñ en plus damay woo di ma conseiller Jacob defal nii defal nii ku baax di nuyu ñëpp daal di sant ñëpp gars yi daal mooy loolu ak ngañ ngañ borom borom pàq lambaay moom da siy sonn bu baax a baax a baax a baax a baax gars yi dañoo bëgg dañoo bëgg mais xamuñu nu ñuy jaar pour ñëw defaral Jacob Balde Jacob Balde ibbil na ñëpp buntam yi mm-hmm. ndax bu ñu gis damaa réservé wu rek que damaa soxor wala bëgguma dugganteeg nit ñi maa gën a bëgg ku ma jàppale mais am na yenn jàppale yoo xamante ni soxlawu ma ko bëgguma ko. nga may jàppale bëgg maa ñàkkal fayda damay téye sama bopp xam naa sama bopp waaw di ñëpp waa poor yi waaw di sa tamit borom caw sa xiir waaw di ñaanal amala treize ndam lu set wecc oyof waaw ndam lu sedd xolam waaw nu muy seddalee suñu xol yàlla na yàlla seddalee xolam noonu yàlla ko yàlla fay xolam ah pour pas. kii géejawaay benn la. su ma sañoon mu dóor ko mu daanu. bon. su ma sañoon mu dóor ko mu daanu. moo sama xarit la. waa ca bokk kon di sant ñi nga xam ne comme nu ko kii waxee rek Zago am na ñoo xam ne dañuy sonn suñu di ñu jàppale. Mhm. ku si mel ni père Mouhamed Ali Ndiaye day jàpp samay mbir bu baax a baax ku si mel ni la de Guiers 2 jàpp Balla Gaye 2 siy jàpp Aziz Ndiaye. waaw di nuyu kenn ki nga xam ne nag kenn la ci man muy sama grand Masata Ala Ndiaye grand bi nga xam ne moom du maca lay jàppale waaye lay jàppale cuuju géejawaay bu dee bëre sax da ciy dugal kon ñu ngi koy sant di ko gërëm. di sant ñu di seen loxo de. ndax lan <laughs> waaw waaw gërëm waay di gërëm Pape Mama. Pape Mama moo ko Masata ñoo yem bu dee bëre dañuy bàyyi seen lépp seen liggéey seen lépp ñëw taxawu la ba yàlla def lu gën ñooñu ñu ngi leen di sant si biir géejawaay bu baax a baax guy gi di ko ñaanal ndam lu set wicc ci kaw rek Reug di ko ñaanal ndam lu gën a yomb ci ndamam ndam yu gën a oyof ci ndamam ci kaw rek Reug maa ngi ko koy ñaanal bu baax a baax a baax guy gi ak bépp mbëru géejuwaay bi nga xam ne war ngaa bëre muy caat bu waalo dafa war a bëre le 27 mars maa ngi ko ñaanal ndam lu sedd guy boo ñaamu ndaw yàlla na ko suñu borom defaral ndam lu sedd guy di nuyu Abdou Sène Abdou Sène maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm di nuyu Fallou fay Fallou fay maa ngi koy sant di ko gërëm Jamin borom nurul la day jàpp sama affaire salle musculation xaw ma sax nan man damay xëy rek di entraîner chaque weer moo may renouveler te fu may entraîner coomo du fa entraîner te chaque weer moo may renouveler sama mois combat mu jàpp si lu baax a baax a baax kooku ay frère lañ Jamil Talla DG borom Cité Aline Saw bi Serigne Fallou borom parking xaritu Waly Seck yaay Waly Seck maa ngi koy sant bu baax a baax dafa jàpp si combat bi di sant euh, gars yi nga xam ne dañuy sonn ci man mooy ñi may àndal. ku si mel ni ñoom Lamp Sondel mbaaru kafe ga ay ñoom Jili ñoom Youssou Fall ñoom ñoom Seydina Xaaf Bembe ñoom Nonga Thiam ñooñu dama leen di sant parce que ñooñu Ousin. Mhm. ñooñ sumay bëre bëree duñu yor dërëm ñooy dem di këlëkulu di dugg ci koñ ma damay tëdd di nelaw rek damay jékk gis lépp sotti à cause de booy ba si booy ndaw yi mafia bële bu ndaw bi ay mafia mafia laa am ay xale yu ndaw yi nga xam ne su may bëri duñu nelaw ci buntu kër gi koñ bi la ñuy fanaan samay maire koñ yi maire marché ñoom mairem lii maire yi amuñu jàmm meew seek xam nga aram taal ñoom ñëpp xam nga dañ ci maire jàbba sama waaw sama yaay nee ne sama seex yi Ousseynou Assane dama leen sant bu a baax Ousseynou sant bi may sant dama bëgg nga may ma ko. parce que ñii lii rek lañu am si ñun. mooy ñu toog di leen sant parce que mënaluñ leen dara. Mhm. mun ñu leen jox dara lii rek am si dama leen di bu baax a baax a baax di sant euh, sam papa sama lépp muy jëy seen di waajal jàng yi moom sax soriñ ko si invité. mu ñëw kulu Kër Mor Sène le 23 février loolu jàng ji yaakaar naa amateurs yeeg promoteurs yeeg ñëpp dañ fay dem chaque at ay làmb dañ fay taxawee kulu amateur promoteur bi yëpp xam jàng bi may wax le 23 février di si woo ñëpp kulu Kër Mor Sène lay amee di sant nuyu waale waa kulu di leen sant di leen gërëm di santaale gars yi yëpp maa leen di béggewaat bu baax a baax a baax ay Fallou ay baay Mor Ndiaye ñi nga xam ne dañuy jàpp si affaire yi bu baax waa Seras Sall nag maa ngi siyaar ñëpp di béggewaat ñëpp waaw di leen wax na ne xama macaa ngi sàkkuwaat ñaan ñi may ñaanal borom daaru maa ngi lay sant xama Ibrahima ñëpp xama ay Seyna Aline xama ñoom ñëpp maa leen di sant di leen gërëm waa Tiwaawoon Cerno maa leen di sant Ndiassane maa ngi sant ñëpp di siyaar ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di leen béggewaat di wax nag ki ma limul rek xel maa fatu te xam ne yaa ngi sama xel di siyaar waat waa Géejawaay waaye ma nekk juddoo fa yaroo fa surtout Gunaas Medina Gunaas maa ngi siyaare Medina Gunaas yëpp yëpp yëpp Israël Cameroun waa Njaayeen waa bële bi waa ñëpp maa leen di siyaar di siyaaraat képp ki nga xam ne yaa ngi siyaare match surtout waa diaspora bi waa Lutte TV waa Lutte TV làmb diaspora ñu ngi def jéego bu am solo ci lamb parce que dañuy xool ay espoir di leen invité di leen xam di leen yokk confiance mm-hmm. waaw damay jël nuyoo bi teg ko ci loxo Ousmane ak Lay Ñaan ñoom bu ko tegee rek ay grand boys ñu ngi fa ay alain promoteur yi ngi fa ay ñeneen ak ñeneen maa ngi leen di siyaare bu wér a wér waa lit TV diaspora maa ngi leen di siyaar di siyaar képp ki nga xam ne yaa ngi si diaspora bi Cheikh Bou Walo sama xarit sama lépp da ngay am combat tey jii nii suñu morom la mais day yëkkati xaalis bëri jox ne nañu préparé leen waaye yàlla def na ne mu ngi France ak ñeneen ak ñeneen ñi nekk États-Unis xam nga di bëggewaat di siyaaraat suma mag Liiru Diagne xam nga Abdou Diouf mam bu Khalifa Ngiraan ñëpp maa ngi leen di siyaar di siyaaraat koñ bi place Seck maa ngi leen di siyaare bu wér essence ba essence Touré maa ngi siyaare ñëpp marché Ndiarème xam nga bàyyiwuma kenn Safraako xam nga cité bi cité ñëpp maa leen di siyaar di wax autorités yi lamb yi da si gën a jàpp si billet yi parce que ñun ay xale lañ amuñu loolu xale yi nekk si koñ bi ñëw seetaan suñu nañ gën a rey seen bopp pour xale yi dem stade bañ a taxaw ci bunt bi man sama lamb luy taxaw si bunt bi moo ëpp luy dugg stade man ay plus de ay. quatre mais bii plus la ay quatre Ndiaga Ndiaye dañuy taxaw ci buntu stade bi duñ dugg stade parce que loolu yëpp ay autorité la parce que man dañ ma doon dañ dañ ma doon jëndal ay billets mais dafa am ñoo xam ma ne bu combat blessé deux jours ñu la jëndal tant de billets tant de billets tant de billets ma jël am xaalis boo xam te dafa am fu ma ko def tey ji billets yooyu loolu njuy na ma ñu bëgg match gëm match dëgg ñoo jël seen xaalis dagg ticket dem du stade te ñàkkul mobiliser dafa mobiliser mais li ma nax ci combat bi bëgg mu dalal ma ci beneen combat bëgg naa ñii di jàppale match nañ gën a vee ci billets gën a jàppale xale yi ñu mën a dem esat normal di ko sëf monsieur le maire di Ba fuuta kosom nekk na si ñun nit koo xamante ne li ma nekk suba ba ngoon moo ngi ci muy fuuta di ko ñaanal mouvement bi di ko félicité di ko félicité bu baax a baax non ñii ñoo siy jàpp ñii ñoo siy jàpp sama combat yow sa bopp uh-huh. non ñii ñoo siy jàpp fuuta kosam aw ma fayam Serif Ngaydo ñooñu aw ma seen fay ñooñu su ma amee bis dañ siy xar seen tànk tubay rey seen bopp maa ngi leen di sant di la sant yow Ousseyn di sant Jacob di sant ñu fi toog ñëpp sa sa Mansour Tamoor bi nu mu tudd sax sa kii bi. loolu kay xaw ma. <laughs> dimbali leen ma si Abu. réseau bi sa réseau bi ñi yor caméraman yeeg ñëpp maa ngi leen di siyaar di leen bëgg waat bu wér a wér a wér. yee jaajëf. doom loo fàtte de. waaw sama yaay Jatu Gey xam nga moom duñ ko fàtte sax. waaw di ko sant di ko gërëmaat bu baax a baax a baax moom jàpp da si jàpp daal moom daa sonn si Jacob Balde. mooy loolu ak Fallou bu Malick ñu ngi tamit ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax jox nañ lu bëree bëri si combat bi waaw di sant sama bàjjen yi bàjjen jiina nday kodd may mun a mun a xajatu asum ndaw sama jabar papa yi tamit ndee la jaaral maa ngi leen maa ngi sant daal seen waa kër ak sama maam sama maam bu jigéen tànda ba maa ngi koy sant bu baax ki nga xam ne dafa sori ci man non su kooku sama morom la sama xarit la sama lépp la muy Ahmed Ahmed Bagdad borom soudeur métallique ki xam ne li ma bëgg mu defaral moo ko te du ma si laaj dara kooku dama koy sant di ko gërëm te yàgg na jàpp samay affaire su combat amul mu dëggal Ahmed man la nekk États-Unis waaw Meda sama xarit sama xarit sama lépp Ahmed borom États-Unis maa ngi lay siyaare met nee naa la dëggee ba ko foo ko wooyee jox waaw sama xarit la sama dong lay def waaw Ahmed nag dafa mun laaj de lu ne lay laaj ci a nag waaw Ahmed sama xarit la loolu la laaj la dëggee ba la dëggee mer nee na ko dangaa ragal ay wax yu ku nee na ko dangaa ragal ay conneries il waaw kooku moom ma ko joxati di siyaar laay laay tamit suma xarit la nekk poor eh, nekk suma waay bu baax a baax doy na doy na dama <laughs> waaw di gërëm sama waa koñ maire yi nekk ci koñ bi sonal naa leen trop trop trop di leen ma saw mooy loolu xam nga mbër di nekk si koñ rek dafa métti mhm. waaw di sant seen xale yi xale yi ndaw yi amuñ seen fay wallahi dañuy ñëw si buntu stade bi taxaw sa yaram day mujjee daw sax billaay wallaay comme Mathieu lu mu wax rek autorité yi nañ gën yëngu mhm. te xam ne mbëri ndaw yi ëllëg ñooy doon ay mbëri mag mhm. waaw te début bi tout tout par le Mhm. soo demee day xaw a métti. Mhm. waaw mooy loolu mu daal di sant ñëpp di gërëm ñëpp waa di sant gars yi si jàpp waa diaspora bi Moustapha borom Istanbul moom teew sa xëy bi moom tamit ñu ngi koy. waaw ñu ngi koy sant ak góor a Xaalim Njaay borom Italie koy sant boobu moom combat ñàkk combat da siy jàpp borom Italie di gërëm tamit waa Mbedd Fass yi waaw presque ay ñaari car day jógee Mbedd Fass di ñëw fii waaw Serigne Issa Laye ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax waa jàmm gën tamit mhm. si kaab mbaam Tëngéej Rufisque lépp waa Kapel Olof di waxee ku dul may boppam lu mu am jël liñ ma mayoon ci temps mm, jeex na di leen jox dig daje beneen yoon wasaare ak yeneen ba ci jàmmaarloo jaa ngeen jëf